journaliste qui m'a invité la première fois ma ne ko c'est au bout de combien de temps que ça a été confirmé. mais au moins yow ba nga waree wax wax nga. xam nga problème bi bi nekk. comme léegi euh, président Diomaye nee nañ ko sa travaux de la corniche là am na ñu arrêté wul. Mhm. arrêté wuñu bien sûr. on m'a traité d'opposant. bien sûr on m'a traité d'opposant. <laughs> contrôle bi des na le rôle d'un alerte na génn na. texte même la VDN 3 ça continue texte d'alerte ñu permettre loolu na génn ñu xam ne tamit fan la ñu mën a dugg ak fan la ñu mën a dugg. Mhm. mais bu demee ba des gens de Pastef me dire que je suis devenu un opposant parce que je leur dis attention il faut voir la corniche même bu ma doon fenn nañu jël seen oto bu ndaw. dem xool ñu nga da nga leen da nga alerté. dem wëri. parce que bu ñu fàtte ne que euh, ils ont des des xaw ma ay infiltrations dans l'équipe qu'ils ont mis pour surveiller le. bien sûr pour surveiller. hôtel Alésia bi ñuy digal fii foo xam ne fii ñu tere woon les Turcs de construire si on a laissé un autre hôtel construire là-bas et hmm. par une personne très connue qui est dans le, la construction qui est proche du, du groupe <laughs> mais vous est-ce que dañ ko mën a arrêter facilement y a problème parce que ne serait-ce que sur, pas juste sur le littoral. il y a, y a aussi sur la VDN 3 il y a tout. c'est non là où vous avez décidé que c'est arrêté. les gens continuent à travailler. les bon, gens continuent à construire. on m'a dit d'aller voir avant de parler mais il y a des choses là même pas besoin d'aller voir. Parce que parfois aussi parfois aussi.